Jawa Seru TV dan Bapak Jelas. mbooloo di wax rek eh, nuyoo jullit ak morom wa rahmatullah di jiital itam ci nuyoo bi suñu frère bi wala bok dom di Tidiane Diop nga xam ne tey moo représenté parti Pastef fii ci commune Tassette mu jóg tey ak initiative bu rafet mooy lan mooy programme mu gouvernement boo xam ni le président de république moo ko lancé muy def ay journée yoo xam ni dañuy def set setal ci dëkk yi di def itam njëmbatu garab ci réew mi defe na ñaar yooyu citoyen bu ne nit ku baax bu ne soxla nga ko mu jóg nag ànd ak an délégation bu mag ñu defit loo xam ni vraiment di nga xam ni du ay nax eh, parce que eh, sacrifice la jëf la joo xam ne dañ ci def suñu bët du ay dig du ay nax parce que ku xëy jóg jël ay moyens déplacé wu bay yitteem ànd ak ay nit ñu ba seen mbooloo yoo xam ne ay responsable day kii dafa bàyyi seen yitte ñëw topp naaj bi ak euh, bëccëg bi di gas di jëmbat di bale ba waxtu wi ñu toll tey nga xam ne presque il était deux heures dootoo si des te laaju la dara dikku fi demandé leen lu mu yóbbu dikku fi campagne kenn ci politique. loolu war nga xam ni wax dëgg yàlla nit kooku euh, la mu la indil war nga ko sant gërëb ko ndax itam yombul ndax li gën a bari ñu miin ko. ci politiciens dañuy faral di jege léeg-léeg la ñuy lay dig dara rek am léeg-léeg ñu yëg la fukk nga am ci benn mais ñoom nag tey dafa mel ni tey dëgg dëgg dëgg seen rencontre bi dañu tàmbalee ak ñun ci jëf bu ñëwee ak yaram ak tegginam bi nga xam ne moom la may jox mu mat sëkk bu ñëwee dama koy recevoir jox ko cëram ñaanal ko tey nag lii ma gis lii lii bu ni politique bee doxe de dafa mel ni bu ma dese woon ndaw comme ñoom xale yi toog tey mu ñomaat yaay te dama jaral suubu waaw parce que lii man ni moom mën naa ko kii moom comprendre naa ko parce que ñëw leen tey ngir lenn dangeen ngeen a ñëw tekki fii ay jeune yo xamni ne bokk nañu ak yeen pass pass yu am détermination yu bëgg dëkk bi di doomu dëkk bi euh, ñu man cee situer kenn mu def mu def tey effort bu mag muy daam géy ñu toog sama nga ne Pastef nga nekkoon APR nga nekkoon AFB nga nekk n'importe quel parti mais ñun suñu intérêt mooy defaral ñu Kër Macoumba te yàgg naa di wax ni Kër bu kuma la koy defar bu lépp dul euh, ba lépp dul ba lépp dul kër ma ko baat fi lay sosoo waa kër gi waa dëkk bi seen pas-pas ak seen taxawaay ak seen fulla ak fayda ak seen bëgg dëkk bi ak seen jëf ci dëkk bi ak ak euh, dëkk bi ñor leen bépp leader bu man doon ba ci président de la république lay defal la nga bëgg foofu lay dalee parce que li koy waral mooy kenn ci kaw xamul li xew fii ki ko nekkal fii nag na ko fii yor muy dëkk bi bu ko dëkk bi ñoree bu jógee soxla si dëkk bi lay yóbbu bu manee ci dëkk bi lay def boobaa ku mu àndal di nga xam ne kii kii kat ku ko bëgg a am di nga ko jàppale ci lii mu am muy dëkk bi loolu nag laa gis ci taxawaayu daam man en tant que chef de wax naa ko mboolem ku fi ñëw di def campagne bi nekkee ci campagne yéen bi ngeen fi ñëwee yéen tijaan wax naa leen ko bi ñu fi ñëwee ak délégation le maire wax naa leen ko man du ma politicien parce que ñun institution la ñu toogee administration la ñuy dox amuñu droit politique ku ko defit dafa fekk rek mu neex la nga def mais chef de moom du ñëw tës ci politique parce que lu ko waral mooy tey recevoir naa délégation Pastef ëllëg waa APR bu ñu ñëwee ak délégation ma recevoir ko ginnaaw ëllëg AFP bu ñu ñëwee ma recevoir ko piir bu ñëwee ma recevoir ko parce que pire buy ñëw day ànd ak ñoom Daga Ndiaye ndax dama naan Daga lu ma leen recevoir hmm? boo ma indi léegi waa APR dañuy ànd ak ñoom Mamour wala keneen pas moom ndax damay naan du ma leen recevoir bu ñëw ma recevoir la waaye nag ginnaaw naw leen recevoir dalal la ndax ñoo bokkul dëkk bi bokk réew mi laneen li ma ñor nag mooy li ngay def la ngay def nag su ma ci gisee intérêt kër kuma gis ci njëriñu réew mi loolu moom ca lay ànd parce que nag waxuñu ñu bu dee am choix waxuñu ko de dañuy am choix dañuy far dañuy voté tijaan bu demee suñu message ci kilifa yi ci ministre bi ci le premier ministre ba ci président de la république dégg nga parce que euh, dañuy wax ni lëkk ba lekkee aloom na ko me coy kon kër ma kuba soxla na courant ñi ngi ci yoon wi yaakaar naa ni loolu bokkatul lu ñuy ñaan parce que am naa ay ay argument yu leer ci ni loolu du ay nax lu taxaw la Kër Macoumba soxla na yoon Kër soxla na poste de santé sori na taseet sori na nge ko dégg nga Kër bëgg nañu ba loo xam ni peut-être xëy na am na ci loo xam ne wàllu mairie la mais soxla na mu am marché am lépp loo xam ne dëkk dëkk da koy am donc loolu nag pour ñu am ko euh, ñi fi nekk ci wàllu politique euh, di coordonné ak ñi nga xam ne ñoo yor réew mi yor moyens am prérogative euh, décidé dara def ko ci barab moyens nekk fi mu nekk seen loxo ñooñu ci la ñu mën a jaar ba am loolu àdduna dañ ci préparer nak boko tejé ci yoon da ngay dem préparer sa alaxira waye nañ ko rafetal man li ma bëgg moy Cheikh Tidiane ñi yéen ak euh, dam ak yenen jeune yi fi nek de ci yenen parti fi ak ci tafet ak ci commune bi fu ngeen dajé melni ni mburookum bu ngeen jógee nak ku ne défendre yi intérêt ak lamu yaakar té bañ ko def ak nonu lol dal ñaa sakku nako ñaan nako bëgg nako itam assalamu alaykum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw yoo xam kontaan naa trop waaw kontaan naa trop parce que man ku ma xool sax xam ne doo politicien waaw dama gis dëkk bi ah gis ni muy doxare ma xam ni am lu bëri lu ñu war a am ci amuñu ko ma xam lu retard la daal waaw après maag sama groupe bi man ay Mass Ndiaye Iba ah ñu jéem a def suñuy jéem a liggéey suñuy daal ba am def woote bis bi dañ ko daan war a sax avant avant kii mooy jour bi président jox woon bis bi mooy le six mais wax na boobu day xat parce que boobu ni ñu jógee te bis bi dem day metti léegi ci ñu am idée boobu ñu ko ba ginnaaw tam xarit waaw woote bi gàtt na met gis nañ nit ñu génn waaw di sant bi parce que lii yëpp moom la moom laa ko jaarale mu mobiliser ay nit ñoom mbay mbay njaay ñëpp ak mu ànd ñëpp def groupe ñu ñëw kon xam naaj bi tàng na mais gis ngeen ni ni ay passif ak jëm ni andal ah, ni net net teew dañu jëngu ah ba jëmal suñu ñëpp presque jëmal ni ci de cent cent garab wala passif mo koy def waaw ma xam ne dañu ay ndaw rek jog rek ah bëgg defar dëkk bi rek ñu ko ko euh, association bi euh, ma pour defal bu dëkk bi mooy xalé xalé ñom ñom ñoom Gueye ak ñom Pape ñu àndandoo ñoom it bi ñu waxtaanee bi ñu fekk suñu daal man nañoo def benn groupe groupe bu dëgër waaw loolu rek ñu la koy seedal yow parce que ñom association bu ndaw lañu mais téw dañu jóg ànd ak ñun ñu def benn bloc waaw ñom neen lépp luñu yëkkati rek ñu ngi ñun tamit lépp mel na ñun lépp lo xam ne ñu pour dëkk ñun ànd nañ ci yéen waaw parce que gis nañ ay xalé ngeen net ñu am jom ngeen ba ngeen dëkk bi waaw ñun rek moo tax a dafa dëkk bi rek waaw lépp ñu gisum mu baax daal wala mu jaay dëkk bi inshallah allah nañ def moyen ba indi seenu ci dara Ah, parce que lii néew loo xam kenn dañ ko jox ñun ñoo def suñuy suñuy suñuy suñuy garab yi lijjanti lépp yaa mi def acte bi moom it aw taseet indiwaat lu plus de trente pieds indi ko tey te loolu laa ñu si dërëm moom moo def ay pexam indi ko waaw ak ñu mu àndal ñëpp vraiment ñu gërëm waa dëkk yëpp la ñuy sant di gërëm xam ne lu am solo la. ñu sant yàlla bu baax di gërëm sunu nijaay di sunu papa li mu wax yaakaar naa ni am na solo trop euh, activité bi tey dañ koy dugal ci cadre programme jub jubal bi nga xamante ni président de la république moom la moom la jaayante ak sénégalais donc réew mi yëpp ñuy war ci mobiliser wu xamewu ci ku bokk parti bi wala ku bokk parti bee moo tax ñuy gërëm bu baax population Kër ma Macoumba gépp ndax activité bi ñoom ñoo ko porté donc li tax ñu ñëw fii tey nag du hasard parce que ànd nañ fi ak ay kilifa te yàlla dogal na ñu nekk ministre de la république ginnaaw bu ñu nekkee député te ku nekk ñoom jaar nga ci dëkk bi gis nga ni dëkk bi mel yaakaar naa ne bu ñu fi ñëwaatee tey dañuy feddali rek kóllëre ñu fase yéene kilifa yooyu nga xam ne ñu ci bari suñu bopp bool nañu ak ñoom ci mel ni Birame Souleye Diop nga xam ne moo yore wàllu courant yore wàllu mines yi ak carrières yi waaye moo yore wàllu pétrole bi xam na dëkk bi bu baax mu ne fi ay yoon yaakaar naa ni lu mel ni su ko gisee gis jafe-jafe dëkk bi ci wàllu courant dina ci dina ci taxaw te ci bu soobee yàlla loolu dañ fexe mu dugg ci mu dugg ci noppam ba mu mën a biral jéego yi bu ko defee ñu mën a wàcce courant ci dëkk bi loolu moom engagement la boo xamante ni man nañ ko jël parce que yalla dogal na muy suñu mak di suñu xarit ñu and ak mom di dem fune ci Sénégal. beneen bi ci des moy mobilisation bi wa dëkk bi def wax dëgg yalla ñi ngi ci contane bu baax di leen ci gërëm di remercier bu baax cellule passef bu Kër kumba nga xamni ni Dame moko jité ak ñim ci andal ñep ñom Maas ñom ibe ak ñi euh, nga xamanteni nekkuñu fi je crois que liñ ci mëna wax bari wul

dinañu fexe ministère bi yore wàllu environnement jàppale ñu ci liggéey bi loolu mooy yéene bi activité de lancement bi nag fii lañ ko defee ak Kër Makumba defuñu ko nag ci hasard parce que keroog bi Birame Souleye jóob di dugg ci commune bi fii la dooree woon ba mu waree nekk député fii Kër ma Makumba Diop ànd ak l'honorable député euh, Aram Ndiaye. kon bu ñu fi ñëwaatee tey ginnaaw bu ñu fi ñëwee suñu borom defal ñu ndam ci législative yi defal ñu ndam ci présidentielle yi war nañ fi ñëwaat pour yeneen i ndam. kon ñëwuñu fi hasard ñuy ñaan ñëpp jàpp ci rek garab yi ñu fi jëmbat ñu sàmm ko aar ko roose ko bu ko defee bu ëllëgee bu ñu fiy ñëwaat ñu fekk fi penc mu naat waaye dëkk boo xamante ne nii montré nañ exemple ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm presse bi jërë ngeen jëf merci ko